problème carte d'identité yi 52 milliards ngeen si def 52 milliards 7 millions de personnes ngeen wax ne moom ngeen bindu kenn ku nekk carte d'identité bi mu yor mi ngi ko dikk 36 mille 400 francs CFA loolu tam jàpp naa war nañu koo xalaat ndax seer na trop te aussi carte d'identité yi boo demee si banque yi sax duñ la ko ubbil compte ndax amul turu ndey amul turu baay kon kooku aussi war ngeen koo bàyyi xel xam ne loolu cent euh, quarante six chefs de quartier yi nekk Touba ngeen yore leen seen salaire depuis jamono Abdoulaye Wade leen fay kenn ku nekk cinquante mille ngeen téye ko Macky Sall ko mi ngi nekk cent soixante cinq millions six cent mille francs yoo xam ne yéen ko yoral waa Touba war war ngeen ko fay chef de village yi nekk Touba kooku tamit maa ngi lay ko bàyyi loxo maa ngi lay wax tamit loo xamante ñëpp war nañu ko bàyyi xel Touba élection yi fa am ñun xam nga ko yow xam nga ko ña fa dëkkul na xamuñu ko ay sekolan loo xamante ni fii lañu yor seen làmmiñ di taltale ko mbell mbelli mais bu suba doon élection dañu la gañewaat ndax Touba suñu Touba moo ko moom te ki ñuy woteel mooy ki eh, nga xamante moom moom la Touba Touba gëm mooy Ablaye Wade bu suba doon élection mën naa laa jox xaalis bu ñuy def élection suba ñu reprendre ko suba ma gañewaat leen suba foofu Touba loolu maa la koy dénk maa ngi lay bàyyi loo xel ni carte d'identité yi bi nga xamante élection yi jàll cinquante mille cartes d'identité neuf cent quatre-vingt-sept mooy yi nga xamante ñoo jëlu seen carte d'identité Touba ñoom jëluñu seen carte d'identité bi nga xamante ne élection mi ngi am ministre de yore ngeen ñu cinquante trois mille huit cent dix cartes d'identité yoo xamante fii la nekkoon yóbbu leen ko woon ndax bi élection yi jàllee indi ngeen treize mille huit cent soixante quatre d'identité yoo xam ne ko indi yéen ministre de muy première vague bi deuxième kon loolu nan la ñuy mën a amee ay carte d'identité yoo xamante ni yéen yéen a ko téye wote te fii may wax ak yow desal ngeen ñu 20 000 carte d'identité yoo xam indiwu leen bu ngeen bëggee Touba nit ñi nga respecté doomu aadama fa nekk il faut ngeen jox nit ñi seen carte dante ñun bi ñuy ñëw fii di wax ak yéen la ñu fi indi ko si xam nañu ko. merci li naa ko àggale merci je vous remercie. honorable député Cheikh Abdou Mbacké euh, bon naa déjà rôle lu DPC du tabax ay marché yow sama sëriñ nga sama xarit nga. moo tax bëgguma ñu lay dugal ci ay erreur parce que ndax d'abord sama xarit nga ensuite sant bee tax kon sëriñ carte d'identité yi waxoon naa ko benn yoon moo tax bëgguma nga ciy ñëw bu taxu fenn di wax na 52 milliards dugg na ci fii may wax ak yow 20 milliards la dugalagum ci carte yi te wax naa la ko wax naa la ko commission dama ne déedéet li ma bind ci rapport bi leer na dama ne carte d'identité yi 20 milliards lañ ci dugalagum actuellement nii dernière facture deux millions de carte d'identité yi sax fayagunu ko man vingt laa waxoon li ma wax leer na man tollaguma fu may fàtte dama ne vingt milliards lañ ci dugalagum léegi nee naa la euh, deux millions de carte d'identité yi ñu mujj am sax fayagunu ko donc bul dugg ci képp la kenn dugal ci cinquante deux milliards loolu mooy d'abord benn deuxièmement euh, salaire u chef de village yi ñun ça ne engage pas parce que pour le moment ba président ñëwee lam njëkk wax mooy arrêté nañ kon seetal kan moo yoreel arrière yi chef de village Touba waaye président Macky Sall yoreel arrière troisièmement sëriñ bi euh, fii du ñàkk ci salle bi bëri na murid du fi ne honorable député fii ay ay murid ngi fi ñi lay déglu ay murid tang fa Touba googu ngay wax jàpp naa ne mbàkk nga sant waaye ëpp luñu fa nang fay voté laa fa mën a voté am naa fa ñaari kër ma ne Touba du woteel nit parce que murid la wala tijaan la ndax Touba fo faral na fi katolik te terewul ba mu soxlaa réew mi sëñ Fall da ko faral Abdou Diouf ba mu soxlaa réew mi sëñ Abdoulaye def ko faral kon bu la neexee nga fare foofu waaye bu ko farale déedéet bàyyi ma yëg si Abdoulaye Wade dama ne bu la neexee nga faral yow sa bopp fenn waaye bu faral sëriñ bi fenn sëriñ moom ñoo ko bokk loo ci wax mën naa ko wax kon sëriñ bi moom délégué lu fi pour ngay waxal boppam am na ku koy waxal kon nag boo waxee loo xam ne lii ñun dañoo nekk aussi taalibe sëriñ bi d'accorduñ ci fii laa koy waxee kon loolu am na solo nga xam ko te yit nag bu fekkente ne bu fekkente ne Touba dafay wootee pour Ablaye Wade parce que Ablaye wadd la élection yi di ñëw di ci bokk ñu xool nu ngeen di wote loolu mooy li am solo kon réew mi murit beeg tijaan beeg catholique beeg ñëpp a fi yam on est dans une république laïque